nee na kon maam cheikhul xadim Serigne Touba di suñu maam mag la mu yàlla gërëm ñépp xam nañu ko nee na ñu ñëwoon di ko ziyaara si di indi itam ziyaaru waaw kër Mawlaaya Abdoul Aziz Al Amin yépp nee na tabaarakallahu njabootam bi doomam bi talibem bi abdul Aziz Ala Ndiaye diko ko bis bu ne neena tay ñu ànd ci ak mom tay ñëw tabaarakallahu jeppal la suñu ziyara ci bis bu mag bi ñu deggmal neena di bisu sante bo xamni suñu mam khadim mustafa maam borom Touba. moo ñaanoon ñépp ñëw santale ko borom bi di wax ni tey ñun dañ fee fas yéene indi ñaari mbubb yi mbubb bi nga xamante ni fa mënuñu koo simmi ndax mi ngi ci suuf lu ñuy def rek mbubb moom mooy moom la jiital sëriñ bi di jox seen wàccuwaay rek mbàkk di ñaan yàlla màggal deux mille vingt bii ñu jublu yàlla nañ ci egg jàmm. nee na di yóbbante am nuyoo itam ci sa taalibe di sa waajur ni nga ko waxee di alaaji Abdul Asis Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal bépp nee na di nag bu baax tànk yi. ak dikk gi nee na sëriñ Abdou Aziz mi ngi lay santaat bu baax rek ndax nee na cant gi li ko waral mooy diggante Touba ak Tiwaawan day diggante boo xam ne dafa rafet te waxtu wu ne muy gën di rafet lu yàlla aar la sàmm ko te muy loo xam ne su sunu amee jàmm rek Sénégal gépp nekk ci jàmm kon nag loolu ñun ñëpp ñoo ko war di sàmm di ko suuxat kilifa yëpp nag kenn ku ci nekk la nga ca war a def def nga ko ca sa waajur nag sunu boroom defal ko ci ndimbal di la ñaanalit nag ci sa liggéey bii sunu boroom gën la cee dimbale kàttanal la ci ndax xam nañ ne boo ko defee wane exemple rek nga ci jublu kon nag ñi ngi lay sant bu baax di rafetlu it nii nga xam ne nii la délégation bi demee ndax moom itam lii muy def ci turandoom la ko jële li mu daan dégg turandoom di ko yéene ak di ko jëf moo tax mu wëyal loola waxoon naa la ko daaw ne la boo xamee ne lenn la nga ñëw ànd ak moom dañ koy rafetlu bu baax nee na ñi ngi lay sant nag bu baax ci sa taxawaay ndax lii ngay def mënoon nga ko yamale Tiwaawan te ko it mu doy sëkk ñu jàpp ne def nga ko fii waaye exemple rek nga ci jublu ak bëgg ñëpp di doxalee noonu ci diggante kër yi muy jëf ju rafet nga xamne du doon lu tuuti sax bu doonon lu tuuti sax day def nek jëf ju mag nek jëf ju reuy ndax li lola symboliser dafa rawati na nak ni jëf ju toll. tay kàddu yi mom kàddu mbekté la yo xamne ken xamul fu mu commencé te ken xamul fu mu yem di ñaanal nak Serigne Mountakha Mbacké yalla na yàlla yok fanam yalla nako yàlla dëgëral yalla nako yàlla katanal yalla nako yàlla may ndam ci liggéeyu mamam bi di khadimul rasul Ah, mbégte nag la ñu am tey ba nga xam ni kàddu yi sax du mën a sori di ko gërëm di ko sant di gërëm njabootu Cheikhul Khadim yëpp di gërëm Serigne Bassirou Bass Abdou Khader bu baax a baax. ndax ñun boo gisee ñu jàpp Serigne Bass ni mu jàppee woon suñu turandoo ba suñu Serigne bu baax ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin. ndax mag mu yàlla gërëm comme ni ko Serigne bi waxee rek soo bëggee ngërëm da ngay liggéeyal mag mu yàlla gërëm. te suñu maam Cheikhul Khadim ku ne xam na ne am na ngërëmu suñu borom. ñun bu fekkee ni da nga dénkaane sa bopp am sëriñ man laataa may ñëw fii ci Touba dama tàggu sumay waajur dem Tiwaawan tàggu xalif général sëriñ Babacar Sy Mansour yëgal ko ni ko dama am yéene dem Touba mu lu ko trop kontaan ci trop yëpp ma ci wax ma ci lam ma cee wax ci ay ngëneel ci def lu baax ci sàkku ngërëmu ku yàlla gërëm ndax loolu rek lañu suñu ay sëriñ digal loolu suñu loolu la suñu ay waajur te ñun ndaw ñi nga xam ne dañoo juddoo Sénégal yaroo fi màggee fi am lu kenn amul muy suñu mag ñu baax ñi dañu leen war di wane dañu leen war a fonk dañ leen war a roy dañu leen war a topp